leen ziar euh, fii ci jumaa yi Touba si euh, liggéey bi nga xam ne daayira Moukhaddamatoul Khidma ñu ngi koy amal ci weeru koor wi muy liggéey bu yaatu nag waaye ñu tànn ci li nga xam ne mooy wàllu waañ wi nga xam ne ñoom ñooy fàggu lépp loo xam ne moom la mbokk jullit yi mbokk taalibe yi di xewloo bu heure dog jotee muy kafe muy meew ak ya ca aju yëpp fii lañ koy waajale ñu ngi fi nag ak menn mbokk moo xam ni euh, moom lañ ñu booleel. Moustapha Fall la Moustapha waaw. Mm-hmm. waaw aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen di ziara bu baax a baax a baax di leen ndokkeel bu baax a baax ci seet si ngeen ñu seet si di leen di ziare bu baax a baax baax baax baax di leen leeral nag si liggéey bi nag te maanaam si liggéey bi nag moom mi ngi nii rek moom maanaam liggéeyu jaayante la ak jëf jël rek maanaam ci waañu fii moom maanaam liggéey bi nag moom ni nga koy leer leer leeral bu baax a baax maanaam boo xoolee liggéey bi moom 7 heures lañ fiy ñëw 7 heures du matin lañ fiy ñëw lañuy ñuy commencé ndax liggéey bi bari na bari waay boo xam ne ne xéewal na xéewal goo xam ne ne boo xoolee fañ ko tàmbalee ak fi tey jii fi mu agsi daanaka jégg na dayoo goo xam ne jégg na dayoo goo xam foo ko foo ko natt rek ëpp na ko ndax boo ko xoolee ñi ngi ko doon tàmbalee si ay benn benn marnet bu ndaw ci lañ ko doon tàmbalee. fi ni tay ji dem nañ ba fi ni danaka bo xolé li ñuy ségg ci café ak ci liliw bari na bari way bo xam ni jégg na doyo ndax danaka motax dañuy téla tambalé tàmbali boo 7 h du matin lañu ñëw su ñëwé dañuy rot dañuy dañuy duy ndoxi rot ndoxi bo xolé danaka bo xolé quantité bi ñuy ci liñ tollu ni ci anam ji ni fi ni ñi ngi ségg ci bo xolé ci 15 tarmusu café ci la mom lañu ségg ni bo xolé 15 15 tarmu café bo xolé xoolee tarmus mi ngi bu nekk mi ngi nekk ci 40 litres 40 litres muy café si loolu moom ci loolu lañuy segg nga ñëwaat si bisaab bi tam noonu bisaab bi tam dañuy defar dañuy defar fii nii quinze 16 ba 17 su dee yaay ajuma yaay alxames ajuma yi day nekk day dem ba doon 20 même noonu ba si café gi tam noonu kafe gi tam ay ajuma yooyu tam dañuy defar 15 waaye day dem ba 17 18 19 ba 20 yooyu. jinjeer bi tam ñu ñëwaat ci noonu tam même ba si jinjeer ji noonu tam noonu lañ ko defee fi nii. ñu ngi doon defar ay ay ay sept yooyu noonu waaye ba huit bu dee ay yeneen bis itam dañuy defar ba ay neuf yooyu itam noonu laa lañ koy jàpp ko taxawu fi ne nii itam boo xoolee liggéey bi moom yokk na yokk goo xam ne yëgg na doyo daal ndax su njëkkoon bu njëkk ci boppam boo xoolee lu mel ne kii lañ ko doon defal ne lu yam nii rek lu mel ni mu dem bañ def ko benn yokk def ñaareelu yokk fii nii yokk noonu lañ demee itam dañuy def ko yokk un yokk deux ba trois ba quatre bo xolé 3 ba 4 bi daw lañ ko financer daal lañ ko lancer dal bi koor gi bëgg jeex ci lañ yok yokk 3 3 ak 4 te ni ñu ngi ci yok 3 4 waaw dal mom manam liggéey bi dal bari na bari go xam dal mom ni nit ñi gëna a ñëw daal dinañ jaayante dal mom ba képp ku fi ñëw dal ko xamni dal da nga mu war li war lo yow nga dog fi mom da nga dog dog inshallah rabbi loolu daal léegi liggéey bi buñ doon xayma personnel bi ñi nga xamne ñoy amal liggéey bi ne nga 7 h du matin lañ fi nek ba daanaka ginnaw dog ba pare euh, personne ni numu tollu personne bi mom bari na lol bari na lol nak so xolé mom moom daanaka ñi fi li parce que man nañ 25 personnes vingt 25 personnes rek ci ko dee ci wañu rek kessé la wara wañu kessé kese nak yenen commission yi nak bo xolé liggéey bi dañ ko xati xajalé ay ay parti parti la bo xolé yoko 1 amna commission yoko 2 amna seen commission yok 3 amna yeen seen commission ba ci yok ba yok 4 bi ni même parce que parce que xalé yi jigen yi jigen yi tam soxna yi tam amna ci ño xamné ne ñom itam seen amna seen amna seen commission bop tam amna seen commission bop dal waaw. légui euh, soxna yi ñom comme wax nga leen légui ligay bi ngeen def ni xent bi sab yeeg café yeeg jinjari ñom wala gor ñi rek ñoo taxaw. wa dafa denan am ci lo xamné ne ñom dañ leen ko cérale bayi leen ko fi ndax dañuy warmal barab bi ba xamné ñom jaxaso jaxasoo goor ñi jigéen ñi dañ koy li dal motax ba amna lo xamné né buñ tollé ji dañ leen jël li ne leen féete leenu lii su dee yenn rahas bagage yi ak yenn ki lég lég ñu jël leen ne leen parte bi rahas leen rahas leen ki défar leen tay ji ségg leen ci njeer bi voilà loolu dal lañ leen koy defee dal waaw dañ ñom dal dañ ko ànd ak ñoom àndandoo ak bu baaxa baax ndax tamit xalaatu leen jema a euh, yef yi ak jamono ndax gis nañ né ay bara ay mbana ngeen teg di xent liggéeyu loxo la ndax xalaatu leen euh, am ay partenaires yoo xam ne dañuy dugal seen loxo ci liggéey bi ngeen am ay machines yoo xam ne dafay gën a yombal liggéey bi. waaw loolu loolu loolu dëgg la loolu loolu moom dëgg la moom ñi ngi ci tànk yooyu nag bu baax ndax mooy boo déggal ci li ma la wax noonu sànq ni nee naa la boo xoolee ñoom ñun fa fa ñu fa ñu commencé ba tey jii xamal ne am na ay jéego ndax boo xoolee boo xoolee ñun suñu daayira bi ci biir rek ñun ñoo doon def ay. ay ay ay nii rek boo ko boo xoolee ñu doon cotiser cotiser nii rek dajale ko dajale ko nii ba mu lii ñu nekk suñu biir rek def ko lii tey jii ñu ngi dem ba mujj ñu dem nañ ko yóbbu ci yokk ba ba ci alek ba ci ba ñu def ko ñaari yokk ba ñetteelu yokk gis nga boo xoolee bu njëkk ay benn kilo woon boo xoolee kii bi sa ginnaaw nii boobu noonu ñun ñoo ñoo ko defar lu nii ba def ko lii wala leen loolu soobu loolu nag ñu ngi ciy xalaat di ci di ci dox ay jéego nag su bis bu leme ba kii nag moom danañ ci danañ ci danañ ci li bu bax nak tout tout toujours nañ ciy xalat ni waaw. ñu lay di andil ay café wala xaalis ngeen di yor dem jënd. waaw lool de mom ay ah, murid ñoy ñooy ñun ay jaayante nak mom ba ci ñun ñu ci suñu biir sax dañuy jaayante manam képp ku ne liggéey mom jëf jël la rek lu way jëf ya ko mom waaw jëf jël la mom xamone ah, ñaata kilo ngeen di wara mëna jëfëndiko ci walu café ak mew waaw café gi café poudre mom mi ngi toll ci 15 15 kilo waaw 15 kilo waaw 15 kilo la waaw café gu moko poudre 15 kilo la doon ah, su dé mew bi saako saako 10 kilo yi lay doon ak ñaari gorsu gorsu paquet paquet gor paquet yi paquet yoon gorsu mag yi paquet góor yaa daal ñaari gorsu ak pharmace day am titam day am ak ba ci naanaatam waaw yooyu dal lañ koy def dañ koy def mew mo xam day manam day day mengu dal kep ku fi ñëw koo xam dal du nekk manam lo xam ne manam kep ku ne man nako jëfëni ko dal waaw wàllu tàndarma yeeg yooyu yéen a ko yor wala daa am ñeneen ñu ko yor waaw dafa am ci magasin bi moo de li ma wax rek dafa am ay commission am commission magasin am commission magasin boo xam ne ne moom moo yor moo yor bagage yi fa ngay jëm jëlee suukar si fii nii boo xoolee si suukar fii rek fii nii léegi-léegi def 5 sac ba 5 sac 5 sac 5 ba 6 sac sax yu manqué dañ koy dañ koy suukare ba ci suukar si noonu waaw chaque jour chaque jour laa la woon waaw cinq saako suukar léeg-léeg sax bu yokkee ne bu affaire bu ñu ko yokkee nii yeneen day dem ba day ëpp loolu day ëpp cinq saak yi. ndax béréb bi xatul. non fii baax na nag nag baax na waaw li ñu fi liggéey nii baax na nag ndax boo xoolee mu baax na baax na moom waaw baax na moom. lan nga ci bëgg a doole loo xam ne laajuma la ko. waaw liñ ci bëgg a dolli nag moo xam ne ni lii moom yëfi Serigne Touba la rek moom tànk kanam la amul tànk ginnaaw day dem ca ca kanam rek la jëm moom. ndax boo xoolee fañ ko commencé di am marnet bu ndaw booba imaam yi lañ ko doon jël di ko li leen ko jox nii wala lenn ñi nekkoon ci jumaa ji nii tey mu dem ba tollu nii xamal ne kon yëf yi moom tànk kanam rek la jëm dem nañ ba ni jumaa ji yëpp yokk yëpp dañ koy lal kon mu xam ne képp ku di am murit rek nga gis lii di sagub sëriñ Touba rek war nga see mën a participation nga jaayante ci nga xam ne lii liggéeyu sëriñ Touba la liggéey bu nangu la loolu euh, waaw commission Moustapha Fall la de waaw ndongole di Baye Baye Fall nag di Baye Fall nag ndongole ah waaw commission ñu yor wàllu waañu si piscine waaw commission wàllu waañu